Uras Info. Ribari Gao. Tewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Djanga du te Notre force. Le traitement de l'info. Euh, mbokk yi ñu suivre ci Uras euh, Facebook yéen a fii ci euh, aéroport Léopold Sédar Senghor ñu ngi fii ci préparation pour arrivée xalifa bi euh, nga am na ay quelques muqaddam yoo ngi fi yoo xam ne ji ngi fii teew ñu ki ci mel ni Abdou Aziz Ndiaye ñu ngi fii ñu wan leen ko danañ dégg jot leen gi nga xam ne moom la yëkkati ñun ñun ñi nga xam ne waa Baye bi def boobu bu njëkk ay ONU bu njëkk xam nga ñu ñoom jéemoon nañ comme ni mënuñ ci daal ndax bi bàyyi demee ci loxoom la guerre bi fay ba déggoo ngir leader yi déggoo. texte bi leen liyee pour ñu commencé waat beneen Nigéria dem loolu ca kaw Cheikh Ibrahima Niass kon sëriñ bi dafa référaat di ñun nag liñ ci gis mooy lan Sénégal war nañoo xam ne ndekete am nañu ressource bu yaakaar ne or ak pétrole ak jamaa rek lañ am ressource humaine nit am nit moo gën a am solo te parce nit ci boppam li mu mën alal mënu mooy wax kon doomi aadama yëpp jeunesse bi Sénégalais yëpp ñu xam ne am nañu référence ba tey ndax lu të alal lu të puissance të kattan sa doomi réew ñoom fekk ci jikkoom ci xam-xamam dëgg-dëgg nit war nañoo xoolaat suñu mag yi ñooy ñaan wala xam religion li ñuy consommé religion musulman modèle religion bi consommé mooy lan mooy islamu suufi ndax islamu suufi ñoo def différence boobu waat islam da nga xam ne la ñu yàlla defal gëm ni ñun desul ginnaaw bu ñu nangu ne dañoo bokk ci ñu des ginnaaw ñu desul ginnaaw différence bi duñ ko nga wax kon am nañ loo xamante ne faw ñu ñuy dégg ci àll bi faw suñuy participation ñu jàmm ko war a gën a xam ne Sénégal ñi a a ñu war a fulaal ko Sénégal côté président laay wax ak état bi foofu laa bëggoon a ñëw sax ndax gis nañ ne euh, Sénégal sax ku gis ne lu mel lu nit ñi sax doxul xaw da jox dañ ko seen gis waaye lu mel nii mu def fi maanaam comme ni ma ko waxee nouvelle diine def affaire la bu yaatu ci kaw ci àdduna bi ndax li nga xam ne ñoom ñoo jiite lépp jéem nañu ko sotti waaye ñoom lu mel ne gisaguñu seen délégation gisaguñu sax ñoom ñu ba tey ñu gis ne carrément li président dafay euh, man de maa ndax xam naa ne président Macky Sall ku respecté sëriñ bi te ku respecté chef religieux loolu man am naa ci njort waaye dafa des ndax mobilisation bi état bi war a mobiliser pour teeru lii euh, moo gën a foor nii pour dafa bi ñu gañe woon jëf bii sëriñ bi def ci biti wallaahi moo gën a mag fi ñu ne gis naa gàllankoor bi la ko que mooy président union européenne loolu la euh, la kon moom moo waroon wàcc ba foofu dégg nga résoudre problème bi tey bu toogee doomi réewam def démb ñu ne bi démb lay ñëw président bi di génn démb ci réew mi waroon naa taxaw xaar sëriñ bi ba ñëw mu mu mu takkal ko médaille d'honneur ba pare yëgloo Sénégalais yi ni li mu def man la ko defal tàllal ko la ko ñaan ko yàlla mu dem waaye gëm naa ni ak réaction nit ñi président bi bàyyee mu noonu di seet merci def benn réaction ba ñu xam ne yëpp yitteel na ko te du ñàkk moom président mu ngi ci jox ay explication yoo xam ne dina xam bu si ne euh, du état bi dañ ko soofantal parce que jëf du rëy la te ay intellectuel lañ dégg nga te xam nañ bitim réew ak enjeu bi am ci Afrique buñ gisee kii faj soxla bi benn sénégalais la dëgg dëgg ñoom loolu soofantal xam naa nag manque de communication dañ ko

Seydi Barxam ne wetu Rahman bi taw na gaaya naan ba jaaxaan ma xana ya fa qandoor ba Seydi Barxam ne journaliste yi dem nañ ba Makka diyaara bi kontaan nañu xaqal qadri say bu tiijaan jey feeñ na soxnaan Seydi Barxam ne mbaal ak yonantu ko mu daan mbaale di yóbbu aljana سيدي برهان جلنا مبالغا بالي سودان بكي بني لهودا سخب جاب وي غاني سيكر لين دغاي دم جبي بغم لين سيدي برهان من مانغا سينب لير با لنج داجي فرهو سودان هل نيانا نان كونغو بيلي سيدي برهان من مانغا سينب لير با لنج داجي فرهو سودان réer sanam barke faate Seydi Barxama piccam xaqu dërëm ku ko def maas mu dam mu say laam na doole xemu la nga mi watu leen Seydi Barxama na jinne bu bëggee daxaar ku yéen daanu wàcc leen gaaw boo dee dof ni ñoo nga weddi Seydi Barxama na dalu karbat daanu posol daw jël bu ñaaw fa taxaw ba dee di ñaan Seydi Barxama tel sagal watul e biram paate foo dey e watu leen bàyyi watu yàlla cey duñ ko dinga Seydi Barxam ngay mu feeñee sa yaa ngay daw di làqo Seydi Barxam la Bye, Barhama. رجفي بيض الحماد رجفي رجفي بيض الحماد رجفي رجفي شيخ الاسلام ورا لي كان ورا لي شيخ الاسلام ورا لي كان ورا لي شيخ الاسلام ورا لي كان ورا لي شيخ الاسلام ورا لي كان ورا لي شيخ الاسلام ورا لي كان ورا لي شيخ الاسلام ورا لي كان ورا لي شيخ الاسلام ورا لي كان ورا لي الإسلام ورلي كان ورلي ما حباي ورلي كان ورلي ما حباي ورلي كان ورلي ما حباي ورلي كان ورلي ما حباي ورلي كان ورلي ما حباي ورلي كان ما يا ورلي كم ورلي ما حبا يا ورلي كم ورلي ما حبا يا ورلي كم ورلي ما حبا يا ورلي كم ورلي ما حبا يا ورلي كم ورلي ما حبا يا ورلي لا الله لا الله لا الله Allah, Allah, Allah, Allah. Happy Mukuma, my wife, باي لا اله الله الله جرج في باي جرج في باي جرج في باي برحمة جرج في باي جرج في باي برحمة جرج في باي جرج في باي سيدنا محمد mooy sirru baay Seex Ahmad mooy sirru baay Seex Ahmad mooy sirru baay Seex Ahmad mooy sirru baay Seex Ahmad mooy sirru baay Seex Ahmad mooy sirru baay Seex Ahmad mooy sirru baay Seex Ahmad mooy sirru baay

waaw mbokk yi ba léegi yéen a ngi topp seen seen bi seen Facebook di Uras Info ñu ngi fii ci aéroport Léopold Sédar Senghor pour tertu ci nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass ci tukki bi nga xam ne ni demoon na ko Soudan am lu ko fa yón yóbbu woon muy dox tànk jàmm pour euh, jubale wala wis ndox mu sedd ci ay bi nga xam ne ni moo nekkoon foofu ci moo amoon foofu ci Soudan ba yàlla def ci jàmm nag yàlla euh, def muy war a ñib si tey ji fii ci Dakar di war a wàcc ci aéroport Léopold Sédar Senghor ñu ngi fii nag ci carte bi am na ay kilifa yoo xam ne ñu ngi fi ñëw ñu déglu suñ mbokk mi Cheikh Mouhamadul Mamoun ibnu Cheikh Mouhamadou Mansour mu Cheikh Mamoun la suñ ko ñu déglu ko bu baax nation union africaine union européenne jëm nañ ci lu ne dafa xaar bu nekk sotti waaye dañuy wax ne mbir mi kon ko xaar kon est ce que newul ne war nañaa jàngal dinañ xam ne lu too sotti ci àddina bi ñoom mën nañ ko liggéey ci loo xam ne lu yombal ndax dans 15 jours ko sëriñ bi dem diggante bi yàggul te lu jët la lépp ba ñëpp wér nañ leen day ànd ak moom ci loolu Sénégal yàlla dañoo dimbali bi nag mooy mooy kilifa yi yàlla yi fi ñu

ci tey maanaam ci jàpp dañ jiital seen bopp maanaam fa tax maanaam Cheikh Ibrahima Niass radiyallaahu anhu maa ngi dégg ci jàmm la doon toog ba tey jii ñu nekk maanaam. Chid Fall salaamaaleykum. diplomatie dafa yàgg ci sëriñ diplomatie c'est normal. maa ngi ciy daal info maa ngi ciy daal info bi moo tax. lenn lu dul muskilaat yi xam ne moo amoon biir si bu ñuy dem foofu yëpp dañ ko doon jiital naan bon foofu dafa bëri demee ba foofu présenté wu jëmm naa Ibrahima taxaw daa ngi dégg yi ci jëm boppam ñoo wéer seen naan daal ànd ak moom defal ko protocole ci dëkk yi fépp foo bëgg a dem ci dëkk bi ñu naan ku la nar a soog ñu soog pare nañ ñu nekk ci jàmm nga ne dafa ñaan day dem mu lay sëqatal di la tiital maanaam foofu dëkk xay la yaa ngi dégg boo demee yaa ngi ko yóbbu yow say njaboot say naa ñu mën la kon tey mu dem ba foofu yàlla dafa ko taw dëgg xam yàlla ko ah, merci dafa bokk ah, waaw maanaam Cheikh Mouhamadou Mahi Al Khalifa dëgg fa ne yàlla lii mu def nii dëgg dëgg dëgg dëgg jëfi ko la ñu koy ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko suñu kanam yàgg taxawee taxawaay bi xam na may ko gudd fan may ko wér gu yaram lépp loo xamante ni Mawlana Cheikh Ibrahima Niass tegoon na fa tànkam ci taxawaay boo xamante ni taxawaay bu jëriñ la jëriñ taan bi bàyyi yàlla dutal ko wax dëgg kon kaa bi dem rek mooy jërë ngeen jëf ko ngeen déglu mooy Cheikh Mouhamadul Mamoun dopp ci Cheikh euh, Mansour mu Cheikh Mamoun kii moom mooy taawam bi moo nekk ci li nga xam ne ni mooy euh, féet moo doon nekk ndoonu baayam mo mo fi nek comme taw papam lepp lo xamni bayam euh, bayo nako fi rek mom moko yor ci loxom la nek wa batay ñu continuer ci directeur bi ñi fi ci aéroport Léopold Sédar senor euh, ngir lan ngir téro ci nga xamni moy mooy suñu xalifa Maolana Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh ibrahim Niass ah, ñi ngi fi ci aéroport bi ñi sét né ñi nga xamni ni war nañ la mëna jël pour jox leen ay cadeau euh, ñu waxtaan ci inshallah ñu incha allah ñu joxe seen kàddu. léegi ñu ngi ci Cheikh Cheikh Baye Fall. Cheikh Mourchid Fall waaw mbéyko ko jox ngeen ne déglu ko laaj mooy gis ko toog ñoom waaw sëñ bi dañoo bëggoon nga wax ñu tuuti rek sa xalaat ورهل الى دور دارفور وفعل فيها فيها ما فعل فيها من الخدمه للدين جبنا اليوم ما شاء الله لنستقبله ولنقول له مرحبا اهلا وسهلا هذا هو سبب مجيئنا هنا ما شاء الله ngir téru khalifa bi nga xamné da fi ñew di koy ko fi dem liggéey li bayam roy papam liggéey bu melni dañ lool papam doon liggéey ñu am bëcc lool pour ñew wan ko ne ko jërëjëf ñu ngi sant di la gërëm yi itam voilà jërëjëf sukran ngeen dëgg mooy Cheikh euh, Baye Fall al Mourchid moom ngi nekk ci Kër Massar di fi liggéeyal faydu bi di fa def liggéey bu am solo macha allah waaw ñu ngi ba tey ci aéroport Léopold Sédar Senghor nit ñaa ngi nii ñi nga xam ne ñoom lañ may autorisation pour ñu dugg fii ci biir aéroport bi waaye nit ñi nag ñu ngi ci buntu aéroport ba ndax dajanaa téye foofu ne du kenn du dugg benn benn rek ñoom lañ may ñu dugg fii ci aéroport bi. waaw ngeen jégal ñu xam naa ne direct bi dañ koy taxawal fii ba xalifa bu ñëw après ñu doo ko déparaat direct bi incha allah waaw ñu ngi koy posé gum fii ba ci kanam ba xalifa bu wàcc bu wàccee rek incha allah da ngeen nekk en direct euh, fii ci aéroport Léopold Sédar Senghor lépp